wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ñu di leen wax ne alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amatana sant yàlla buur bi tabaraka wa taala ma delloo suñu ruux ñu fekkee beneen bis ñu di ko ñaan moom mi ñu may fanaanuk jàmm yan nañu yàlla may kendaluk jàmm amin ya rabbal alamin mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot bokk na ci xéewalu yàlla yooyu xéewalu ibaada xéewalu jaamu yàlla ba ñu yàlla wërsëgal ci ginnaaw tuuti ñu joxe ko ci jàkk yi ngeneel ba fa nekk keroog si suñu waxtaan yu weesu yi jot nañ ko waxtaan ak mbokku auditeurs yi yu ñaan yàlla suñu boroom yàlla nañu yàlla may dégg ak topp jotaay bi ba mu neen jotaay bi yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def xasanaatu fil mizan amin ya rabbal alamin mbokk yi bokk na ci xéewalu yàlla yi xéewalu jaamu yàlla yi nga xamante ne moo tax yàlla binduñu mu ne ñu ci suratu zariyat wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma xeetu jinne ak xeetu doomu aadama yi ci lenn taxut ma bind leen lu dut ñu jaamu ma ñu wéetal ma mu wax ñu ne tamit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen fi nekk di jimalim xiiwal yeneen yàlla xiiwalal du ngeen ko mos a matale du ngeen ko mos a dajal kon nañ leen bokk sant yàlla suñu kémtalay kàttan ba léegi moo ñu ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen yokki xiiwal yi bu ngeen yokk sant yàlla ñi dinaa leen yokk sama xiiwal kon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ñu ci maana xadis nañu képp ku yàlla may wërsëg bi nga yeewu ci jàmm war nga war a mën a sant yàlla buur bi tabaraka wa taala ci anam bi nga xamante ne mooy danga koy delloo njukkal ne alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mboolem xeetu cant yu kawe yi mboolem xeetu cant yu kawe yi mboolem xeetu cant yu matale yi ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ne moo ma delloo sama ruux gannaaw bu mu dogalee ci man gannaaw bu mu namee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te wa ilayhi nusuur ci moom yàlla lay dellu keroog bu ma jeexalee dund bi kon sant nga yàlla ci xéwal yam la xéwalal mooy xéwalu nelaw waaye nangul nga ko ne ginnaaw bi nga jeexalee dund bi de doo dellu ci kenn képp ko nit ñi yaakaar fépp fu nit ñi yaakaar kenn du dellu fenn ci foofee kenn du dellu fenn ci ñooñe waaye delluwaay bi daal du ci kenn du fenn fu dul fa yàlla buur bi tabaraka wa moo tax nga dégg yonentu bi ne ci ci ñaan bi wa ilayhi nushur ci yow yàlla la dellu buur bi tabaraka wa kon dëggéem fa yàlla muy dellukaay bi kon yow jullit bi war nga xam ne buur yàlla tabaraka wa moo fi nekk di dottil xiwalam ya nekk fa moom ci sa jëmm ji ba tax na bu ñu yonent bi waxutoon ne nii lañu ñu war a sante yàlla gannaaw bu ñu yàlla may xéwalu nelaw amul kenn ku fi nekk ku ñu ko mën a wax kon sallallahu alayhi wa sallam comme nañ leen ka daan waxee rek waaw joxe na message ba ko yàlla jox ngir mu partager ko ak jaam yi laaye na biir xeet wi waaye leeral na lépp loo xamante ne war nañ si war a mën a njëriñu ba yàlla jëlee ko ci kaw suuf si sallallahu alayhi wa moo tax képp ku dem ci bërëb ba mu nekk ci barrière or ya nekk ci Medina nga daal di ko nuyu yow it nga feddali sa kóllëre sa diggantek moom nga seede ne nga ne ko assalaamu alayka ya rasulallah assalaatu wassalaamu alayka ya nabiyallah assalaatu wassalaamu alayka ya habiballah qad ballagta risalata wa addalta al amaanata wa nasaxta li umma wa jaaxadta fi llahi xaqa jihaadihi xata ataaka al yaqin nga ne ko maa ngi lay nuyu yow mi yàlla yónni maa ngi lay nuyu di ñaan yan na yàlla jàmm ak mucc ak barke yow mi yàlla sopp ci mbindaafoonam yi yal na jàmm yàlla nekk ci yow yal nekk ci yow yal na la yàlla wàccal barke ak yërmandeem ci sa jëmm ji sallallahu alayhi wa sallam di ko ne xat ballagta risalata maa ngi seede ne di déggal di wéral ne matal nga nubuwa bala yàlla jox ngir nga partaasi ko jaami nga ne ko wa addaltal amaanata confiance bala yàlla confier kóolute bala yàlla confier matale nga ko leeralal nga ko leer na nañ waaw def nga sa kémtalay kattan ci leeral bu wallahi nga ne ko wana saxtali umma laxe nga biir xeet wi conseil nga xeet wi tere nga leen ba mu leer waaye lépp luy xeeti digle yi tamit wax nga leen ko ba mu leer nañ allahu akbar li fi nekk kañ mooy samaan wa waaye yow moom def nga sa mission dégg nañu topp nañu moo fi nekk walla sami'na wa asayna wala dégg nañ waaye ñoo lànk duñ ko ñaari benn rek moo fi war a mën a ne waaye ñun dañuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min alladina qaalu sami'na wa ataana yan nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañ naan dégg nañu waaye topp nañu lañu ñu dégg amin ya alamin mbokk yi yonent boobu mu ñu wàccee alquraanul karim di téere bi nga xamante ni kitaabun anzalnahu ilayka mubaarakun li yadabbaru ayatihi wa li ulul albaab bur yàlla ne yonent bi ne téere la boo xamante ne moo ko wàccee ci yow ngir mu doon lu barke waaye téere bu fees dell la ak barke waaye téere bu am barke la man yàlla maa ko wàccee ci sa jëmm ji waaye ngir boroom xel yu yànje yi war see war a mën a manqué la ñuy yebbil askan bi ci pénc bi waaye boroom xel yu rafet yi ñu war see war a mën a niitoo waaye maa leen jox autorisation maa leen jox ndigal ngir ngeen dugg ci géej ci alquran ngeen nappee fa li leen di njëriñ waaye maa leen jox autorisation ngir ngeen dugg ci àllum alquran ngeen taxani fa la njëriñ kon kitaabun téere la anzalnahu yalla ne yonentu bi maa ko wàccee ci yow ilayka mubaarakun ngir mu nekk ci yow téere bu am barke téere bu am barke mu am faa'ida ki koy jàng am barke fu ñu koy jàngee mu am barke kuy dugal yifam kuy dugal alalam kuy wax nit ñi kay leen jëfandikoo alquran sama béréb bi béréb bi day am barke ku taq ca alquran am barke fi dunia wal ku ko weddi xoolal suñu këru kilifa diine yi alquran bañ doon niitoo alquran ba doon jëpp bi si seen ët ba léegi trace ba nga fa ku ko weddi xoolal seen sët sëtaat yi ñoo fi nekk di doxal la nga xamante ne mooy doxalinu diine bi ñu fi nekk yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla dëgëral amin ya rabbal alamin waaye kër buñ koy jàngee nii kër gi nga xamante ne ah kilifa kër gi moo ñu may autorisation moo ñu may ndigal ngir ñu di ko fi waxtaanee yan na alquran doon barke boo xamante ne yàlla da koy wàccee ci kër gi ak bépp béréb bañ koy waxtaanee wala ak bépp béréb bañ koy jànge barke ba nekk ci alquran nag yàlla bu ñu ko yàlla xañ amin ya rabbal alamin ba tax na ñu fas yéenee wéyandik yéen lenn ci suñu tem bañ doon waxtaan ak yéen ci waxtu su niiw ci ginnaaw ci ay fan yu néew yenn ci mbokk auditeurs yi sàkku ne dañ ko war a wéyal bu dee jeexul bu fekkente ne tamit suñu waxtu bi may nañ ñu ko ñu war ko war a mën a tegaat si pinc bi ndax da di loo xamante ne toujours dañuy bokk ci ñi nga xamante ne dañuy digle lu baax waaye dañuy tere lépp loo xamante ne baaxul kon ndigam yi yonent bi sala sallam moo nañu ne amil bil maarufi sadaqa waaw tegtal nit ki digal nit ki lu baax ab sarax bi nga génnee la yow mi koy tegtal walla yow mi koy digal wa nahyi anil munkar sadaqa tere lu ñaaw sarax bi nga génnee la yow mi koy tere ci pinc bi wala yow mi koy tere ki ko nar def kon xeetu digle yu baax ay sarax ya ñuy génnee ci suñuy jëmm lañu xeetu tere yu bon ay sarax ya ñuy génnee la ci suñuy jëmm yi kon bu ko kenn tay bu ko kenn bay waaw bu ñu tay di digle lu baax di tere lu bon bu ñu tay di tere lu bon di digle lu baax bu leen ko tay bu ñu ko tay bu ñu ko tayal ku ko dégg ku ko déggul ñun nañu def suñu devoir waaw askan bi nag bu ñu demee ba noppi ci lu ñaaw day ñëw mëdd lu baax yóbbaale ko su ko defee lu baax dootu fi nekk ku koy def sax dañ lay dañ lay ragal waaw ñëpp ngi bëgg lu ñaaw ñëpp ngi bëgg lu bon yow ngay bëgg lu baax su ko defee yow dañ lay effacer dañ lay écraser ci pinc bi te loolu lu ko waral mooy dafa am jullu naas lu gën a bëri ci nit ñi dañoo nangoo wax dañoo nanguta wax luy jagal pénc bi kon fekk am na jëmm yuy dund ci kaw suuf si ñooñu duñu tàyyi duñu deñ di orienté nit ñi yóbbu leen ila ma yuhibbuhu llahu wa yarda jëmali leen fu yàlla bëgg mu doon fu mu sopp ndax yàlla moo ne waltakum minkum ummatun yad'una ila al xayr il faut du ñàkkte du jaas laa budda wala chaque il faut mu am ci yéen aw xeet wi nga xamante ne dañuy woote jëmale ci lu yiw dañuy woote jëmale ci lu baax waaw dañuy digle lu baax di ko promouvoir di ko campagnal di ko yëkkati di ko tas waaw wa yanhawna mun munkar dañuy doyadal lépp luy ñaawteef dañuy doyadal lépp luy xëytu luy nasaxal humanité ci kaw suuf si wala dañuy wili pandi képp ku bëgg a doyadal luy lor imanité ci kaw suuf si ba tax na ñu nit ñu bëgg leen wax tukki bu jaarut yoon woo xamante ne ah xale yeeg jeunesse yeeg lenn ci population bi ñu ngi koy géema nas ngir ñu doxee ko génn ci réew mi ci anam bi nga xamante ne loolu mënees nañ kaa tuddee xaru wala rey sa bopp te yàlla moo ñu ne ci alquran wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahiman bu leen rey seen bopp bu leen xaru yàlla ku leen yërëm la te moo ne moo ñu wax ci alquran ci ay béréb yu fasante ko ne qul siiru fil ard ne leen nañu doxantu ci kaw suuf si nañu tukki waaye doomu aadama yi yàlla moo ñu jox biisaam mu ne ñu nañu tukki waaw nañu tukki qul ne leen siiru fil ard na ngeen doxantu ci kaw suuf si na ngeen def tourisme na ngeen dem na ngeen dikk waaw demalante beeg dikkalante bi maa leen ko nangul na ko jëfee waaw tukki ci kaw suuf si fanzuru kayfa kaana aqibatu alladina min qablikum waaw fanzuru kayfa kaana aqibatu alladina min qabl kaanu aktharuhum mushrikin yàlla ne xool ne leen siiru na ngeen doxantu fil ardi ci kaw suuf si fanduru ngeen ngir ngeen mun a xool ngeen gis kayfa kaana ana nu mu demee ana nu mu nekkee aqibatul mujjanteelu alladina nga xamante ne min qabl fi jiitu woon ah yàlla doxantu nañ ci kaw suuf si xool nañu mujjanteelu melokaanu gaay ñi jiitu woon fii yàlla loo fa bëgg a wax yàlla ne xanaa gisu leen kaana nekk na aktharuhum lu gën a bëri su ñoom de mushrikiin dañ doon bokkaale kon tey jii nga nga war a mën a déggee ci maanaa aaya bi jullu naas lu gën a bëri ci nit ñi yàlla ne ay bokkaalekat lañ yàlla ne yonent bi nel sama jaam yi nañu doxantu ci kaw suuf si ñu xool melokaanu mujjanteelu gaay ña leen jiitu ci dund bi nekk na lu gën a bari ci ñoom de dañ doon bokkaale yàlla ne bokkaale yàlla nag jaamu xërëm ci la pas-pas bu yàqu ci la ngay fas ci sa xol yàlla ak leneen loolu aqida faasida lañ koy duppee loolu pas-pas bu yàqu la pas-pas bu bon la yàlla ne kaana aktharuhum nekk na lu gën a bari su ñoom de mushrikiin ay bokkaalekat lañu ay jaamukatu xërëm lañu yàlla dong daawuñu ko jaamu de dañuy jaamu yàlla waaye dañu am luñ ci boole waale dafa am lu ci rax aw moo tax yàlla ne xool ne leen siiru doxantu leen qul wax leen siiru nangeen def tourisme qul ne leen siiru nangeen ngeen tukki fil ardi ci kaw suuf si fanduru ngir ngeen mën a xool kayfa kaana na mu woon aqibatu ledina mujjantelu gaa yi nga xamante ne min qabl ñi leen fi jiitu woon waaye yàlla loo bëgg wax ci jikko ñi fi jiitu woon waaye yàlla loo bëgg a wax ci melokaanu ñi fi jiitu woon buur yàlla ne kaana aktharuhum nekkoon na lu gën a si ñoom yàlla nag mbokk yi bu ne lu gën a bëri loolu moo gën a yàlla bu ne kaana ak saruxum nekk na lu gën a bëri si ñoom kon bu fekkente ne woon ay million nit li ñu kon juróom wala fukk wala ñaari nit ñoo fa nekk ñu doon wéetal yàlla yeneen yi si des yëpp dañ doon bokkaale yàlla moo tax yàlla ne kaana ak aktharuhum nekk na lu gën a bari su ñoom mushrikiin ay bokkaalekat lañ waaw yàlla ne maa leen permettre ngeen tukki ci kaw suuf si ngeen xool melokaanu gaay ya nga xamante ne ñoo fi nekkoon ñu leen jiitu woon waaw seen melokaan bu ngeen di xool seen melokaan di xool seeni traas di gis ne ah kaana ak aktharuhum lu gën a bari si ñoom dañ doon bokkaale yàlla ah, yàlla moo ñu jox permission ne tukki leen yéen na ngeen tukki xool mujjanteelu gaay ña fi jiitu woon yàlla wax fa ay màndarga yu fasante ko ci aaya yi jiitu aaya yi waaye aaya bi buur yàlla ne bokk na ci li gën a bari su ñoom seen màndarga du lenn du dara lu dul la gën a bëri ci ñoom dañ doon bokkaale yàlla ay jaamukatu xërëm lañ boo ko weddee takkal sa bagaas jëlal sa vol tukkil xoolal demal xool am na ay dëkk yoo xamante ne la fa nekk boo ko fi wax dañ lay reetaan te loolu mooy réalité am na dëkk yoo xamante ne boo fa demee mala boo xamante ne ñun suñu dëkk bi tey jii dañ dañuy dañuy saam ndawal waaw dañuy saam ndawalam am na dëkk yoo xamante ne kenn du ko laal kenn du ko fa toroxal waaw te ñooñu nee na ay jullit lañu te naam ay jullit lañu waaye am na si ñu nga xamante ne pas-pas ba ñu am seen biir xol ba na jël nañ mala boobu yéegal ko à haut niveau kenn du kenn du jëfandikoo nag boobu waaw nag yooyu moom kenn du leen jëfandikoo waaw kenn du leen rat kenn du leen rey kenn du leen lekk kenn du leen def leen waaw boo leen ko waxee ñu andi la ay argument yoo xamante ne boo koy déglu sax yow mi ngi koy wax dangay reetaan waaw boo fi nekkee di ko wax amaana ki musul gis loolu ku tukkiwul dem ci béréb boobu danaan noo kii li muy wax ne lu mu doon léeg-léeg nga dem foo xamante ne da ngay gis ñu yett fa ay bant yoo xamante ni màndargay jëmm doomu aadama ñu ransale ko béréb woo xamante ne da ngay compter ba sa bët yem fu sore waaw ñu ne kenn ku nekk sa bos boo ñëwee dal di kos say alimet teg ko ci béréb boobu dal di tëj sa ñaari loxo def ay yëf wax ay wax après dox dem sa yoon subhanallah moo ne yow loolu yaa ko yettal sa bopp wala sa moroomu doomu aadama moo ko yett kon nga gis ne ñoom nee nañu dinañu jaamu yàlla naam xam nañ ne yàllaa ngi fi ñu ngi koy jaamu waaye dafa am lu ñu dugal seen diggante ak seeni boroom kon yow julit bi nga xamante ne yow la yàlla jox maanaa suuratul ixlaas qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufan ahad kon yow ana lan moo tax nga jël loolu taxañ teg fee nga ne ña yàlla ne kaana ak aktharuhum mushrikiin la gën a bëri ci nit ñi ay bokkalekat lañu lu tax nga jël inspiration ñooñu di ko dund nga di ko indi sa dund te bokkuloo ñoom réew bokkuloo ñoom xeet bokkuloo ñoom jubluwaay moo ne dañoo installé ay privilège ci àddina ak ay taari àddina ci loolu ñu nekkee ngir xoy la ko or ko seytaane moo leen di rafetalal seen jëf joojee képp ko bëgg a jël nit ki ci li mu nekk mu ñëw ci bokkaale yàlla xooy ko alal xooy ko ndomb tànk moo tax ngay digg ay secte ay secte ay secte lan mooy secte luy secte secte boo xamante ne booy dugg xam nga ko waaye boo demee bi ci biir sa doo xam nang fa nekkee fuy jëm moom yàlla boo fekk xeer bu mag sa kanam nga dem bëkk ko sa dund bi yem foofu su ko defee nga dem rencontrer sa borom mu gis sa dossier bi dara nekk fa c'est vide dara nekk fa lu dul bokkaale nga daal di ximbiliku ci dëgg nga daal di gis la réalité ngi gis ne ndekete la fi nekke woon seytaane moo la taaralaal sa jëf ah yàlla bàyyi la seytaane mu di la pimti pamti di la jëlee mina nuuru ila dulumaat mu di la jëlee ci leeru yàlla bennum leeru yàlla nga xamante ne mooy leeru yàlla ba jóge ko fa yàlla moom dong mu di la dugal ci ay lëndëmu lëndëmaay boo xamante ne tey bu la dugalee ci lëndëm bi nga dem ba nuuru ci loolu suba mu génnee la fa soobu loola ci weneen lëndëm mu nekk ay zulumaat moo tax gis nga yàlla suñu borom duñu wax ci alquran ne seytaane mooy kilin di jëlee ci menn leer kot yóbbu leen ci ay lëndëm lëndëmaa yoo xamante ne kenn du ko mun a compter kenn du ko mën a lim parce que sa dund bi yëpp dalay dugal ci ay lëndëmaay waaw leen bu njëkk bi boo nangoo ba mu la fa suubuloo nga suubu ci leen di bu njëkk bi jeex na lendemaay bi daal comme laalo dangay ngay rek jóge ko ci premier lendemaay sóobu ci deuxième lendemaay jóge ko ci deuxième lendemaay sóobu ci troisième lendemaay noonu nga koy jàppoo ngay dem dem di sóobu ci lendemaayu seytaane ànd ak ngay dund ba keroog nga mbëkku benn miir mooy dund bi daal di yem fenn moo tax yàlla jox la avertissement ci suratul takaasur pour yàlla ne alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir su boobaa nag kallaa sawfa taalamuun thumma kallaa sawfa taalamuun mu naan leen ba léegi kallaa law taalamuun ilmal yaqin ba keroog saar bi di jeex yàlla buur bi tabaraka wa taala mu ne yéen doomu aadama alhaakum moo ne di ngeen seen bopp seytaane mu di leen xalak alhaakum moo ne di ngeen seen bopp seytaane mu di leen di dugal ci luy toskareel seen jëmm ji li leen di jural toskare li leen di jural alkaange ba keroog dee di leen dikkee ngeen bàyyi seytaane mu di leen bëgguloo àddina ngeen bàyyeek seen bopp seytaane mu di leen bëgguloo ay bànneexu bakken ngeen bàyyeeg boobu seen bopp seytaane mu di leen bugguloo àdduna bu éphémère boo xamante ne lépp lu mu la jox xamal ne ci am am na ci kum ko jëlee alhaakumu takaasur moo ne torox ak toskare ñeel na leen yéen doomu aadama yi moo ne da di bàyyi seen bopp seytaane mu di leen di pimti pamte di leen dugg génnee di leen def loolu defuwul ngeen nekkee noonu hatta zurtumul maqaabir ba keroog dee di ñëw fugg seen bunt moo ne ni ngeen nangoo nekkee ah, nekkin bi ñaaw na nekkin bi ñaaw na de ah waaw nekkin bi ñaaw na yàlla ne nekkin bi ñaaw na de waaye képp ku nangoo bàyyi sa bopp seytaane mu di la defloo lii mu di la bëgg la àddina mu di la defloo lu defuwul mu di la melloo melokaan bu ma sopput man yàlla ba keroog dee ñëw fëgg sa bunt hmm? avertissement bi wàcc na de kilifa bi àdduna jalla wa ala bur yàlla avertir na jambi de waaw mu ne hatta zurtumul maqabir ba keroog dee ñëw fekk leen su boobaa nag ñu takk leen ba ngeen digir kuj ñu andi leen waaw yàlla ne kallaa sawfa taalamun su boobaa ngeen di xam lépp dëgg la allahu akbar buur yàlla ne su boobaa ci ngeen di xam lépp dëgg la yéen mi bàyyi seen bopp seytaane mu di leen gololo mu di leen pimti pamte éeru jule nodd mm génne azaka mm dimbali kootane mm déglu alquran moom kenn waxaale wu ko waaw moom seytaane occupé loo na boo xamante ne sax say njaboot yàlla yàlla dënk sax amoo seen temps yàlla ne xatta zurtumul maqaabir ni ngeen di nekkee seytaane ba keroog dee ñoo fugg seen bunt allahu akbar kilifa bi avertir na de nee na kallaa sawfa taalamuun su boobaa ngeen di xam ne lépp dëgg la waaw nekk leen fi rek bàyyi seen bopp seytaane bu ne gauche ngeen topp ko bu ne ngeen topp ko bu ne jóg leen ñëpp jóg waaw ngeen di wax di wax di wax di wax ba seen làmmiñ dugal leen ngeen nekk di mébét di mébét di mébét ba ngeen jël gaal yeeg loo xamante ni képp ku ko nar a jël pour tukki dangay alku dangay xaru dangay ngay rey sa bopp loolu yëpp seytaane moo leen koy mébét loo yow mi jël gaalu looco ne da ngay tëmb ci kaw ndox bi dem Espagne walla barsa yàlla ne xememteef bi la seytaane di xemem loo nii dalay wor de dalay wor te man yàlla ku la la waay waay waay wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp inna allaha kaana bikum rahiman yàlla ki leen yërëm la seytaane moo fi nekk di la xemmem loo yow xoolal lamin dem na mu ngi tabax paate dem na yow bu na yaaya màkk ey faatu dem na mu ngi nii mu ngi waaj a jox magam mu dem xeetu yooyu noonu yëpp seytaane la yow it boo fi toogee waa koñ bi yow lañuy ñuy reetaan boo fi toogee waa koñ bi yow lañuy ñuy reetaan waaye yow jur bi ne diw sangam dem na gisuloo lu muy def seen kër gisuloo lu muy defal waa kiram yow it ngal la waay yaay boy bul xirtal sa doom yow mi koy xirtal bu jëlee gaalu looco mu dem yem ci ndox bi jëni saqatoo ko yow mi ko xirtal bi mu jóg yow moomu yaay ñëw jalar be ko di ko jooy naan su ma yëgoon kon yàlla moo ñu jox autorisation ne tukki leen kul siiru fil ard tukki leen ci kaw suuf si waaye nag hmm, bu leen rey seen bopp de waaw moo ne yàlla moo ñu ne kul siiru fil ard ni leen ñu doxandu ci kaw suuf si fanduru ngir ñu xool kayfa kaana na mu nekkee aqibatul mujjanteelu gaa yi nga xamante ne alladina min qabl ñi leen fi jiitu woon yàlla ne kaana aktharuhum nekkoon na lu gën a bëri su ñoom mushrikiin dañ doon bokkaale yàlla kon bu dee yàlla moo ñu jox autorisation pour ñu tukki waaye yàlla moomu moo ñu ne wala taqtulu anfusakum nga la bu neen rey seen bopp inna allaha kaana bikum rahiman yàlla kileen yërëm la mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegsi fu ñu war a yëkkatee jotaay bi war a jébbal béréb bi ñooy joxe xabaar ci nasaraan saa ilina mawla jalla wa an yajalana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 wa nafaani illahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allaha lii wa lakum min kulli dambin fastaghfiruh innahu huwa al ghafuru rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu